lu ñu mën a wax mooy ñun chauffeur yi nañ jël suñu responsabilité bu responsável. jël suñu responsabilité état dina jël responsabilité ndax ñëpp tiit nañ ñëpp tiit nañ tax ma ne bu ñu jógul état dina am dina am dëgg suñu kaw parce que mënuñu concevoir qu'au Sénégal Magal Touba ba à nos jours ça fait 17 jours ci 17 jours ñu enregistré 54 morts sur la route c'est trop Magal Touba 30 morts euh, euh, lundi 17 ba 18 on a on a arrêté 18 morts boo jëlee calculé yëpp 54 morts ci 17 jours yaakaar naa loolu loolu coronavirus a rey ko ñun war nañu xoolaat suñu comportement bu baax a baax la part de responsabilité de l' balaa ñu koy laaj ñun nañu matal suñu bos sa nit noonu ngay mel da ngay matale sa bos ba pare nga soog a laaj leneen ñun suñu bos matale wuñu ko y' a trop d'indiscipline sur la route.